ginnaaw nuyoo bi ak sant gee ngërëm gi nga xam ne amel nañ leen ko ci vidéo bi ñu dugal ndax taxawaay bu rafet bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy bàyyi seen seen préféré Aladji Malick TV di kontaan ci yéen bu baax a baax xibaar yooyu dañ koy commencé ak numéro cinq mi nga xam ni tey jii fële euh, ca la nga xam ni mooy match bi Brésil doon doxal ak gone yu africain yi nga xam ni ñooy Black Star yi nga xam ne ay Ghanéen lan match boobee Casemiro ma nga woon ca biir ah, ci li nga xam ni mooy digg xolub milieu terrain bi nga xam ni Brésil bu ko gisee xol ba day sedd guy Casemiro moomu ànd ak ay gaayam nga xam ni amoon nan match boo xam ni dara taxul ñu football ko lu dul waajal la nga xam ni mooy coupe du monde ba nga xam ni mooy am fële nga xam ni mooy Qatar coupe du monde boobee Rafinha dana bokk ca ña nga xam ni bu àndeek dogalu borom bi ak blessé wul dara jotu ko dana bokk ca gétt ga nga xam ne ñooy ànd ak ñoom nay mar ak ka nga xam ne mooy Richarlison dem foofe nga xam ni mooy Qatar pour waajal fa la nga xam ni trophée boo xam ni soxla nañ ko fa ñoom waa Brésil donte football am nañ ci taxawaay bu am solo waaye ba nu gëjee jël coupe du monde ak léegi yàgg na lool. yàgg lool moom la match bi nga xam ne ñoom lañ doon football ak Ghana tey am ci waa Ghana ndax ñetti bal ci dara ku la dóor da nga bëgg match ba gaaw jeex ñu seeti leneen Richard Linton ràññeeku ca match ba waaye Marquinhos eh, juróom-ñeenti minute moo dugg ci biir kër gi jaxase ko def foofu ab doom ñaar fukki minute ak juróom-ñett Fodou eh, Richard Linton eh, daa di ñëw rajaxe kaa si ñaari bal ci dara ñeent fukki minute balaa ñuy mi-temps muy wane ni match bi bii yëpp mu ngi dugg avant mi-temps Richard Linton daa di ñëw def ab duble boo xam ni moo tax gone brésilien yi am ñetti bal ci dara loolee di signe boo xam ni bu am importance la ci Richarlison ak Brésil di wane ni candidat sérieux la ci li nga xam ni mooy coupe du monde bi nga xam ni moom la ñu dëgmal